Gambia dafa mel ni cinquante oto ñoo la jël si woon de ah. terroriste nga <laughs> waaw moo tax à chaque fois bu ñu euh, tuddee moo boobu sama kanam dama naan nit ñi vous êtes en danger ndax terroriste moo toog seen biir. <laughs> voilà parce que man xam naa dama bokk si ñu ñu dénoncé rek ñu daal di ñëw un après midi mercredi euh, heure wàcc jot na ñu ñëw bureau fëgg ñu ne madame Niang la ñuy laajte bon. man duma madame Niang effectivement maa leen tëjil ça veut dire que déjà ñi ngi may jël si mais xamuñu ma maa leen tëjil porte bi ma tëjil leen mais dofuma seen corpulence rek ñetti nit grand gaillard ma xam ne ñii police la ba ñu duggee bureau madame Niang ma ne xaaral ma dugg euh, sama bureau jéem a xam nga rek waajal sama bopp léegi quelques minutes après am ko dugg ne ma noo tudd ma ne ko Nafisatu Nafisatu naa ma ne ko Nafisatu Gueye mu génn xam naa dem wax ko moroom bi quelque temps après morom bi ñëw boobu yëpp ñu ngi si bureau madame Niang aussi xaw ma ñu ngi koy jéem a intimider et tout ça keneen ki ñëw ne ma noo tudd mais na ko sa Gueye mu ne nii téléphone am yow la ñuy seet ma ne ko ca ñu dem bon ma raaje samay quelques bagage personnels ànd ak ñoom ci yoon bi nag ñu ngi may traité de terroriste de rebelle voilà ne ma nag liñ lay jël si jëlewuñ la si sa cadre liggéey mais si si si si say ay manifestation genre lañ ma tuddal maan ngi leen d'accord sama patriotisme moo tax ngeen jël si ma et je suis fière j'ai pas peur def leen lu leen neex voilà euh, en cours de route le kenn si ñoom mi ngi doon def ay appel di woote ku ñu jàpp tey ku ñu jàpp tey parce que dañ ma ne boobu naa leen yóbbu sama kër comme terroriste lañ jël si xëy na man am naa ay arme ma ne ko ok nañ dem parce que tamit foo nga accepter ñoom si yooyu ñuy def pour bu ëllëgee bu ñu am benn preuve contre yow parce que tey jii mënoon naa mënoon naa leen bañ a yóbbu sama kër ñu defe ne daa am lu may nëbb ma yóbbu leen bett nañ ma ma yóbbu leen mais si yoon bi li ma si jaaxal mooy woote yu ñu doon woote di woote di woote di woote ndekete ñoom renfort la ñuy def dama compté man compté naa ba presque huit blindé yooyu nga xam ne dañuy taxaw ci kaw yore seen ay pistolet armé jusqu'aux dents parce que bi ñu ñëwee nag ba sama kër ma dugg ñuy fuyee bu ñuy fuyee noonu yëkkati lal bi jaxase nit bi yëpp ma leen su ma doon terroriste de bu may denc arme du ma ko denc fii ndax sama doom fii lay fanaan si leen yëkkati ba gis benn boitu daal naan ma lu nekk fii ma leen terroriste ngeen jël si kay ma nekk si boîte bi mu daal di tëdd gi su gisul dara ainsi de suite mais bi ma génnee nag si laa xam ne dëgg dëgg ñi dañoo gëm seen ay bon bëgguma tudd moo bi kat koñu koñ bi dañ ko barricade kenn ku ne taxaw armé seen lamp yi di tàkk moo leeral koñ bi ba mu tàkk ñëpp nit ñi voisins yi taxaw seen balcon ma xam ni foofu tamit ndimbal yàlla la rek parce que tamit Ousmane ko préparé nañu waxoon na ku ragal waa nga ragal kaso waa nga ragal dee bul bokk ci combat bi donc psychologiquement xamoon nañ ne tant que ñu ngi leen di déranger ñun gars yi du ñu bàyyi te dinañ ñu tëj suñu kaso taxaw na si donc j'étais préparé psychologiquement ci euh, situation boobu noonu parce que xam naa ni pour ñu dëggal li ñuy sosal nit ñi foo ñu am lu ñu joué voilà donc jël si nañ ma si condition yooyu bëgg a fatt information mais pour wax leen ni ñoom jàpp à l'aveuglette lañ ma jàpp deuxième jour sama enquête si lañ xam ni que man maa yaayu sëñ Saliou et que damay gérer benn page sur Facebook lépp pour wane seen ay caaxaan ndax pour man nit ki boo koy jëli war nga am lu dëgër si moom ba moom du am lu mu lay bu ëllëgee mais jël si ma noonu ci deuxième jour bi la ñuy door a découvrir que man dama am une page Facebook et que je suis très ñu changé waat seen enquête d'ailleurs dañ ma mënote woon bi ñu may enquête mana leen duma leen tontu tant que dindiwu leen mënoti donc après si lañ naxanteeg man génn samay mënot ci biir waxtaan wi ñu may posé ay questions ma di leen tontu mais tout le temps maa ngi leen di jéem a wan ni man ragaluma damaa nekk ci dëgg te bañuñ ci dara parce que mënoo judd ci Sénégal goo xamante ne da dem ba benn moment en que jeune dee moo lay gënal dund parce que dëkk bi neexul si kenn da nga fiy judd màgg fi jàng fi pour nga tekki wala pour nga entreprendre d'ailleurs ñu ngi def sax benn publication sur Facebook benn patriote entreprendre si Sénégal sax moo métti léegi nag bu la jàppee ci condition yooyu xëy na ñun on a été des contractuels am nañ contrat bu ñu génnee dañuy déposé waat suñu CV ñu dem liggéey mais ki nga xam ne da doon entreprendre jël bu bëri def ko ci ay marchandises ñu ñëw jàpp la bu dee amoo ku mën a liggéey comme yow taxaw la comme yow sa xaalis day nax saay ay bor fekk la si nga def benn recommencement à zéro doo xam yoon bi ngay jaar parce que ñi ñu jiite tant que jóge wuñ fi Sénégal du normal loo dugg dugg loo am jom am jom ci problème ngay mucc te loolu daf fi war a jeex ni mu fiy jeexee mooy ñu abal ñu ci jaam ak salaab euh, jeunesse bi mun a am repère kenn ku ne li ñuy wax chaque jour rek li ñëpp bokk ñëpp jot si Sénégal mun a neex pour ñëpp ñun combat bi loolu la incha allah voilà. donc en tant mois de mars le mois de la femme nan ngeen dundee rôle boobu noonu actuellement avec seen sortie de prison euh, merci merci Dieynaba euh, on peut dire en fait que damay commencer di rappeler que les tortures dafa am parce que bu ñu naan torture ñëpp dañuy jàpp ne rek ce sont des tortures euh, physiques euh, mën nañ la def euh, loo xam ne day laal sa yaram mais am na ay xeetu def yi nga xam ne ne mën na jàpp sa moral mën na jàpp sa xel et wax ci kanamu ci colloque bi donc dund nañ fa dund nañ fa ñëpp euh, comme ni ko waxee euh, on a eu à faire des plateaux ak wax liñ fa dund bi ñu génnee euh, dalay topp am na yoo xam ne moom du gaaw a deñ comme mën na nekk manque de sommeil mën na nekk manque d'appétit voilà mën na mën na nekk jël pois comme mën na jeex donc ya y a plusieurs manières bi nga xam ne ne la personne peut changer ñu foog ni voilà du dara day soog a génn fekk ne boobu ñàkkul ne am na lu mu lu mu subir soit lu mën a wax wala lu mu ñàkk mënta wax donc euh, damay rafetlu euh, tey toogaay bi surtout euh, ci kanamu le médecin psychologue comme ça moom dina gën a ñëw ci li nga xam ne ne y a les yi nga xam ne ne à la sortie de la prison mën na la topp te mën na la yàqal rawatina aussi nga génn ñu boole si ay yeneen comment dire yeneen métit comme nga ñàkk sa liggéey ak yeneen ak yeneen donc li may faral di wax rek du man doo ah pratiquement ñi fi ñi fi nekk ñëpp que ce soit même au niveau des hommes boo génnee maanaam euh, li nga xam ne moom c'est clair li nga ñëkk a mooy se liggéey donc euh, mu nekk li nga xam ne day ñëw dool euh, dooleeku si yow charge émotionnelle yi nga jot a dund en prison donc day nekk ay séquelles yoo xam ne day baax ñu si waxtaan di xool nañ lañ si uti ay saafara merci beaucoup Falla mm-hmm. Ben ñëpp rappelé wu sorti ñëpp rappelé nañ si vidéo je pense que tu avais tànk bi ngay génn depuis nga génn nan ngay dundee métit boobu noonu ak euh, lan la la yokkal wala lan la la wàññin ci sa ci sa quotidien waaw asalaamaaleykum mbooloo mi ginnaaw bu ma rafetloo invité bi te tamit di gërëm suñu maman yi fi toog rawatina sama maman yi jógee ba Ziguinchor ndax bi ma leen gisee dama fier wane ni Sénégal ñun ñëpp benn la amul xaaj ak seen waa di dellu siwaat rek sama génn prison man bi ma génnee prison c'est juste aw moon li ma neex ndax lan ndax dama gis ñi nga xamante ne ay femme brave yoo xamante ne wax dëgg fa yàlla sama feebar ñoo nekkoon ak man seexluñu ma benn yoon nekkoon ak man di ma toppatoor comme bu ma demee ba génne ñoo ñu ma bàyyi leen ci biir mu doonoon loo xamante ne lu garaaw la woon ci man ndax heure ma doon tëdd dafay mel ni ba tey ñoom ñoo ngi nekk sama wet di ma jàppale te en plus bi ma génnee samay mbokk di ma daw bul fi toog ndax yow say say vidéo moo ngi circuler ci réseau yi te en plus boo fi toogee tamit attan nañoo ñëw ñi euh, jël si la en ñun tamit te ñun ñoo ngi liggéey dina yàq suñu liggéey ma ne leen ku sa mbokk dax jàmbur dina la fat ma ne leen je suis li ma nekk ndax ci yoonu dëgg laa nekk te noonu noonu la demee tam bi ma génnee patriote yi ñoo ma fat man ma ciy sante yàlla suñu borom bu baax a baax tey may wax rek loolu métti na ma métti na ma tamit mais méttiwu ma ci benn côté ndax li ñu naan boo nekkee ci yoonu dëgg rek danga koy santee yàlla suñu borom te xam ne tôt ou tard dana jeex xam ne jeex na ba noppi li may ñaan rek bu kenn dellu ginnaaw ndax jeex na ba noppi bu kenn boo delloo ginnaaw rek c'est parce que yaa ngi dellu ci yoon bu bon bi bu kenn na euh, léeree mbir que ni yoon bu baax lañ nekk waaw man métti na ma méttiwu ma ndax sant yàlla te tamit li ma ciy gën a métti mooy tey ñi nga xamante ne ñoo ngi ci suuf tëdd est-ce que ñun ñooñu buñ leen euh, mun nañ leen jot tey naan leen ñëw leen ci plateau munta ne loolu nag moom moo ci gën a métti mais sant yàlla ñun buñ fi toogee nii di ko rafetlu bu baax di ñaan yàlla suñu borom le combat continue incha allah. incha allah merci beaucoup ba euh, Baben euh, am na solo Mame jaara mam jaara yow je pense que bokk nga ci ñi nga xamante ne man genre elle m'a un peu kii j'en ai avec beaucoup de monde. même si yow ak Fala xawoon ngeen terroriser waa fële mais bon grawul Mame Diarra depuis ta sortie j'ai pas vu trop de plateau yoo partagé ak nit ñi est-ce que mën nga revenir tuuti ci sa vie carcérale wala ci rôle bi nga xamante ne actuellement yaa ngi koy jouer en tant que une femme qui a suivi euh, waaw beaucoup si question bi dëgg la moom depuis que ma génn kaso defuma ay plateau loolu nag damay tàmbali si d'abord ma saw suñu ay wayjur masawu suñu ay xarit suñu ay am di ndax dañuy wax ne lépp loo am rek say wayjur ñoo la si ëppale feebar metti na mais am na lu ko gën a metti mooy am doom bu feebar te loolu par respect wala ngir mën a dalal seen xel ñun ñoo décidé woon toog faju dalal seen xel ba pare soog a ñëw nag waaye nag teewul ñu ngi doon mëne suñu combat ci suuf man je suis élu local sama base nekk euh, au niveau de Gueule Tapée Fass Colobane te du ñu mës a bàyyi suñuy activité politique ndax lii mënuñu xoqatal su ma dellu see nag si suñu si sama vie carcérale euh, li ko Colette waxee métti na méttiwul ndax te léeg nga toog nga dugg si douche jooy parce que da ngay da nga naan man lan laa fi def defuma waxuma un jour dama doon waxtaan ak Mati Sarr ñaaw yal na ko yàlla teggil nattu bi nag toogaay bi yàgg na ma ne ko de mën nga xalaat lu ne sa àdduna mën nga xëy accidenté mën nga def problème bar détaillé mais doo mu sa xalaat tëdd kaso ndax yow da nga xam sa bopp jàpp ne ku defay dugg kaso waaye nag ndeke demewul noonu tey ji gox yëpp a ngi kaso mais nag euh, dañ ko dundu ak jom dañ ko dundu ak euh, ak esprit de discernement bu rëy ndax dañu jàpp ne dara gënul noble dem en mission pour yi mm-hmm. dara gënul noble tey jii nga dem ba am quatre-vingts ans ñu ne ah amoon na de lu fi xewoon en deux mille vingt trois kii moom bokkoon na ci ñi nga xam ne moom ak njabootam yëgoon nañ bu baax métit bi en quelque sorte da nga tëdd pour nit ñi mën a jaar sa kaw mhm. loolu c'est une énorme fierté mhm. ndax ñun Sénégal la ñu am fii la ñu juddoo fii la ñu yaroo donc fii la ñu mën a amee bànneex fii la ñu mën a amee naqaar di wax ne loolu wàññiwul dara ci suñu engagement ndax euh, mun naa ne réew mi dañu ko perfusé suñu biir deret la nekk moo tax ñu incassable loolu yëpp dara dara dara li li xale yi di wax dara frégé wuñu ci euh, ñuy sant ñu santaat bu baax nag euh, il faut que je le dise waa Pastef mhm. parce que taxawu nañu ci suñu vie carcérale bu baax mhm. depuis sa euh, garde à vue ba fiñ lay placé ba keroog ñu naan la libéré nañ la mën nga ñibbi sa kër toujours yaa ngi leen di gis et permettez-moi de de dire une mention spéciale à Yacine Diagne dama taseeg yaayam un jour camp pénal ma ne ko xam naa ne de ñun bokk nañ ci li tax ñu jàpp jàpp ko ndax na ñu añ indil nañu reer indil nañu nekk ba ñu faf xàppe xàmmee ko ba faf jàpp ko donc c'est quelque chose boo xam ne je tenais à la solidarité bi am entre les patriotes c'est extraordinaire te bu ñu wàcc yoon boobu may ma li ko fi ba si kanam